jëfër yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV comme ni ma ko annoncé woon sànq nee naa damay am contentement ak mbégte lool di sikk ak moom li nga xamante ne moom mooy plateau bi mu nekk sama chéri nekk suma xarit ñu fas yéene ànd ak nag moom deuxième partie bi si jàngat bi ba léegi maa ngi koy annoncé sànq muy ki nga xamante ni moom mooy bilan xam sa cosaan dama koy bàyyi mu nuyoo après ñu continuer waxtaan bi bàyyi jëli maa ngi lay nuyoo. Euh, série original wala série foofu parce que nit ñi mooy bëgg a sonal <laughs> xam nit ñi ñoom man maak yow lax mais pas ñoom nit ñi. mais waxal nag. bu ñu xamee foo jëm doo yegg moo amour nuyool. maa ngi koy nuyu soxna Fatima di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi jóge Wassare euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax fépp foo nekk. ak foo mënti nekk ci àdduna rek ñu ngi lay jaajëfal di leen nuyu euh, ku ci nekk sa tur ak sant di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko ñun soxna Fatima maa ngi lay fay bu wér a wér a wér. <laughs> moo na laa la nuyoo <laughs> waaw maa ngi lay fay nag xam naa ne a làq eh, mais moo na laa la nuyoo. waaw moo tax man la de maa bëgg ah ok kon da daw. ah waaw dafa jot de mu toll nii kon divorce bi kon est-ce duñ ko def fii rek gars yi si gars yi ñuy seetaan ñoom baat bi kon ñu maye ko mu jeex. ah léegi bàyyi buñ commentaire buñ ne ma ma ma wàcc la. dama laa dama ne la mon maa ngi lay nuyu. waaw ah. waaw léegi sama fayul moom man maa lay may sa baat. Euh. <laughs> <laughs> waaw baax maa ngi lay nuyu sama fayul ma may la sa baat. waaye pour yéen ñu ñuy seetaan ji li may naa ko baatam. may naa ko baatam parce que day sóoraal te xam naa ne daam ku ko ñoddi ci ruq bi moo tax tey mu ah, may naa sa baat waaw bàyyi ji kon ni ko doon defee rek à fois tey nag ñu jël li nga xam te ni moom mooy écurie xam sa cosaan ah, ñoom ñi nga am ñi nga xam te ni ñoom am huit combats cinq défaites trois victoires ñi nga xamante ni nag ah seen trois victoires yi moom mooy Laycha hmm. Bébé Zora Batista numéro 2. ñi nga xamante ni ah ñoom lañ daan muy Petit Baboy. Gaynde Daaru Jatli ak Baboy ak Segg Ndakaaru ñoo ñooy li nga xamante ni seeni victoire ak seen défaite mais nga gis bilan bi en tant que euh, écrit boo xamante ni Pikine la nekk. ay ñoom ondulu faw nekk fa ñoom sook ñoom Jatlin Jatli ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy Jordan ba mu jugee Tay Shinga euh, ci foofu la dem. nga gis ni am na ay naaru sokaas très bien nga gis ni ay leader ñu foofu noonu est-ce que tey seen bilan bi nii nii euh, yow nan ko ko gisee ba pare waaw euh, comme li ma waxoon mhm. euh, na gën gën ko xamalaat mhm. gën ko xamaat parce que mhm. équipe yi damaa jàpp ni tey fi mu toll ni lu mel ni xam sa cosaan mun naa jàpp ni benn mbër bu yaakaar naa moo fa bëri mooy mooy mooy. jatli jatli jabli moo bëre fee ci arène nationale mm-hmm. moom ak xale bële mooy jamtéeri jamtéeri mm-hmm. euh, jamtéeri am ndam ci kawam mm-hmm. léegi nag loolu day waral équipe bi xëy na ñi ñu yaakaaroon ku ci mel ni Jordan naaru sokaas amoon nañ yaakaar ni dina dina bëre Jordan amoon nañ ci yaakaar am na ci yeneen xale yoo xamante ne ñu ku mel ni fils de Badlen euh, ak yeneen xale yoo xamante ni ku ku ci mel ni euh, nu mu tuddati Euh, soq mm. nga xamante ni mu ngi waroon laale Gamou mm. Gueye combat yooyu bu ñu xëy na moo tax équipe bi demee ni mu demee am défaite yoo xamante ni euh, mm-hmm. xëy na yaakaaruñu ko woon ci équipe bu mel ne xam sa cosaan mais mbër yi tamit war nañu xoolaat seen taxawaay parce que écurie yi ren xaw ma nu mu demee noonu xaw ma jàngoro bi la euh, cinq mois yi gàtt ci ñoom xaw ma qu'est-ce qui se passe mais euh, palmarès bi yi di def wax dëgg euh, yaakaaruñu ko woon ci ñoom parce que yaakaaroon nañu écurie bu mel ne xam sa cosaan suñu bëree gàtt gàtt neuf combats au moins dinañ am sax lu toll ni ci juróom benn victoire wala ñu am juróom victoire sax moom mu tane hmm. mais bu ñu demee ba écurie ni ñoom ñooy bëri saa yoo waxee bilan écrit defe ni mooy ëpp fuuf seen ndam. kon war na laajaat ñoom ñu liggéeyaat parce que am na benn interview boo xamante ne yow yaa ko demoon jëli euh, on the floor muy wax te ni écrit bi entente bi ñu war a am seen biir amuñu ko mbëri déggoowuñu gisuñu seen entraîneur amuñu dañu am problème président bi bu ñu fa gëjee jaarale président bi ñu ko laajee daf ne loolu moom du ci mën a wax. parce que bu ñu ko woowee ci équipe bi mu ñëw toog mu wax moo lay wan ni kon Onde le Fou nekk na nit koo xamante ni xëy na tur bi. ma ngay dem ci làmb mais dañoo yaakaar ni comme fou bi muy woote da koo da ko da koo naan alors que naanu ko da koo sëlmoo waaye yëgul ci biir yaram uh-huh. parce que bu waxee da ngay xam ne nit ku dëgg dëgg la bu waxee nga xam ne nit ku gëm boppam moo wax bu ne nit ku am lu muy bëgg am lu muy bañ mooy wax uh-huh. euh, mu wax loolu ci écrit bi ñu bare bare xam ne kat li mu wax dëgg la parce que uh-huh. nee na mbëri mag sax doo gis ci écrit ba nee na il paraît que ni moom mooy ñëw ak jatli mais ñi di des ñëpp combat ba combat ñuy ñëw kon donc moom loolu mu waxoon dafa xaw a feeñ. dafa feeñ dafa feeñ. Ah, parce que mhm. ah. ndax euh, mbër tey boo demee ba am surtout ñoom naaru sokaas ñoo tey xale yi bu ñu leen gisee ñoom dañuy am parce que ñoom ñoom ñoo leen njëkk a bëre ay ñoom Jordan tey gis nga mbër mu mag pour nga ñëw assister écurie day am lu muy fu muy yóbbu écurie bi mais bu fekkee da nga toog sa kër nga ni combat ba ngay génn xale yi tamit ñoom boo leen nee entraînement sax. dañuy mel ni ñu day yaa dañuy yaakaar la mbër mën a def moom moo gaaw moom moo moom moo baax. ndax maa ngi la ko wax gis nga écurie yi ñu baal ma mais am na écurie yoo xamante ni dañoo war a jëlaat li nga xamante ni dañoo war a defarwaat defarwaat mooy gis nga écurie tey éducation. dafa baax maa ngi la ko doon wax keroog gis nga tey lépp lu amul organisation rek. du baax ndax bu fekkee tey dix huit dix sept heures lañ ne moom la ñuy entraîné nga ñëw dix huit heures bu dee mbër mu mag ba day toog bàyyi ba ñëpp ñëw. nga ñëw xam nga téen ñor di ñëw boo ñëwee lan nga fay ne bu ko defee booy dañuy bàyyi lépp ñëw am na ñoo xamante ne tey bu ñu nee mbër mii tey maa ngi doon ñëw 17h mbër mi di ñëw 18h wala 18h30 moom danaan kon su ma neexee def loolu ndax diw heure bii lay ñëw loolu tamit xam nga day xaw a yàq écurie ndax écurie xam sa cosaan moom wax dëgg yàlla lii moom man bett ma parce que on la fu waxoon na ko. moo lay won ni kon écurie am na ci yoo xamante ne yu sew a mu ngi seen biir. parce que bilan écurie écurie xam sa cosaan kenn yaakaarul woon ni dinañ def lii ci làmb. Euh, ku ci mel ni Jordan Jordan nga xamante ni jàpp naa ne fi mu toll nii euh, bokk na ci leader yi. bu ah. nekkul leader bokk na ci ci yi nga xamante ne ñu ngi ci écurie boobu. te sax ci la bokk. Uh-huh. parce que boo xoolee moom soq euh, naaru sokaas. Euh, jatli jatli uh-huh. ñoom ñooñu fis de Patte ñoom ñooñu rek fépp fu écurie war a mën a toll war nañ ko fa mën a yóbbu yóbbu parce que amul lenn lu mbër di jéggaane ci écurie jàmbur te amul seen écurie boobu uh-huh. léegi nag Jordan bi mu jugee ci taay si ba léegi bi mu ñëwee foofu bëriwul léegi kon moom ana ñëw bi mu ñëw xam sa cosaan moom jot na ban ban rendement la ko amal lan la ko apporté ak ak lan la lan la ci gàcce parce que pour man mbër boo déplacé wu jóge ci écurie dellu ci beneen écurie jot na kat yàlla na nga nga dem rek tak nga nga démarché sa bopp sa combat wala boog sa encadrement ñu démarché la combat boo xamante ni di nga ci mën a bëree génn si sax ñu xam ne Jordan ñibbisi na mu ngi mu ngi xam sa cosaan. waaye yooyu yëpp gisuñu ko nag mu mel ni kon euh, dafa am loo xamante ni war nañ ko mun a réglé waat ci seen biir. parce que ay mbër moom bu ñu àndee lu mel ni euh, ay mag lañ ay kilifa lañ te ku ci nekk responsable war nañu mun a wootante waat seen biir. ñoom ñëpp ñu toogaat waxtaan trouver benn terrain d'entente alors que ñoom ñëpp ñu mën a liggéey. Mhm. jëm ci kanam parce que écrit moom amul secret bi du dara lu dul liggéey. Mhm. parce que na ànd ak say rek uuf leen ànd ak ñoom encadré leen ci encadrement bu baax ngeen ànd liggéey. Mhm. parce que loolu rek mooy moo moo lay fay parce que nee na seul le travail qui paie. parce que boo nanguut a liggéey nangu woo xam dara fooy teg pour nga am parcours bu mel ni ci làmb du la bett yi ngay yu mel ni maanaam day am ay wax dëgg yàlla wax ji am na solo analyse bi tamit tegu na mais daal kon li ñuy wax rek ndax écurie bi ne mën nañoo wax ne écurie bi leader yëpp fa. Mhm. ndax écurie moom bu demee ba am 4 leaders 5 leaders rek écurie la. Mhm. na am na écurie yoo xamante ne ay boy dong ñoo ko jiite. Mhm. kon nag bu leen yàlla mayee chance boobu ñoo am ko mel ni Jordan Jatli Sokko ak Naaru Sokaas te am nañu ñoo xam te ne ñu bari am nañ ci expérience ku ci mel ni Naaru Sokaas ak Jatli kon ñooñ daal mun war nañoo mën a ñëwaat pour mën a jëmmal écurie bi daal booy yi mën a ñuy gunge tamit booy yi surtout stade loolu tamit day joué mbër mu mag ñëw indi booy booy boobu loolu da koy encouragé mais tey boo nekk ci écurie doo gis kenn ku dul ki nga xamante ne ay ondula fu nga gis parfois nga gis soq soq moom day indi booy yi li noonu mais daal écurie xam sa cosaan ba léegi tamit weesuwul comme nañ réunir waata réunir waatal rek toog waxaat lépp xool fa nga xamante ne moo baaxuñu ñu jël seeg yóbbu ci mbaret bi mais jiri euh, dañuy dugg ak ki nga xamante ne moom mooy entraîneur bi moo di Diop. ndax am na jàngat bu mu mën a def ci bilan bi après ñu continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi. Euh, dañ koy bàyyi moom mu nuyoo après tamit ñu xool yan question dañ koy allo oui. allo allo waaw Fatima. waaw sëñ maa ngi lay nuyu. maa ngi sant bu baax a baax. waaw yal mm-hmm. yaa ngi en direct ci plateau jàngat làmb. tey ñuy waxtaanee li nga xam te ne moom mooy sa écurie mooy xam sa cosaan. ñu gis si mu def huit huit combats. waaw. cinq défaites trois victoires. trois bilan boobu ban jàngat nga ci am. waaw bilan boobu boo xoolee jàngat bi ma ci am mooy euh, saison bi dafa gàtt comme li ci xew moom ñëpp xam nañ ko muy wàllu feebar bi taxoon ñu arrêté combat bi mais amaatoon nañ beneen combat yoo xam ne waroon nañ ko prévoir uh-huh. euh, ba jour bi ñuy war a arrêté combat bi sax amoon nañ tax combat yu ñu waroon bëree ci Mhm. mais jour boobu lañ ko arrêté mooy dimanche mhm. euh, kon am na yeneen yoo xam ne waroon ci tegu mais jàngat bi mooy comme ni ma la wax nii euh, cinq défaites la ñu am euh, trois victoires mhm. nekk na plan boo xam ne ci gàttal dafa dafa xaw neexul ci ñun daal ci gàttal ndax ah. daanañ am lu ëpp loolu mais comme combat yi dafa gàttoon affaire yi gàttal yàlla def comme rek ñu net waaw dañ ci sant yàlla rek nga na mhm. en tant que entraîneur dañoo gisoon ni fan yee ci ginnaaw wasaare sax moom moo ko jël muy Onde le Fou dafa mel ni li waxoon dafa xaw a coïncider ndax gis nañ ko mu defoon benn sorti di leen dal sax ci côté entraînement ak mbër yi nga xamante ni duñu ñëw. loolu yëpp waaw loolu yow déggoon nga ko. waaw waaw loolu même bu ma ko déggee même bu ma xam naa ni am na si solo ndax euh, euh, comme ni nga ko waxee noonu bi nga expo dafa laaj euh, ngeen déggoo ngeen bëgg li ngeen di def ngeen ngeen ngeen doon benn ci keneen bokk bëgg-bëgg su ko defee yàlla da leen ci jàppale mais bu amee ay. ay ay ay genre AFP rek wala genre clan rek dafay xaw a handicap ci écrits yi loolu moom euh, sport soxlawul loolu quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. même bu fekkee ni moom du wax na ko ak bu ko waxul yëpp tamit euh, euh, loolu loolu soxla nañ ko trop ko tam mbaa boobu ñu doon benn. Baye Djily Atia. jërëjëf maa ngi lay nuyu. allo. waaw waaw rëdd bi nag moo bu baax li ngeen wax parce que maa lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw maa ngi lay dafa am loo xamante ni daf ñu jaaxal ci équipe xam sa cosaan parce que dafa mel ni Onde le Fou keroog ci biir ay waxam dafa dafa génne ni que ni mbëri yu mag yi ñu yaakaar ci équipe ba ñëw na pour dooleel xale yi. parce que bu bu entraînement jotee euh, boo tuddee benn mbër bu mag doo fa gis ñaar te euh, amoon na ci ñoo xamante ne am nañ combat ku mel ni soq diggante mag Gamou Gueye est-ce que loolu du leen du leen handicapé ci seen euh, équilibre bi. nga comme li ma wax rek maanaam day soxla day soxla mbooloo quoi day soxla doole. Hmm. mooy yéen ñi bokk li ngeen di liggéey da di ñëw tout le temps. pour ngeen mën a liggéey pour euh, ci nekk di dimbali sa morom ci li nga ñëw mais bu kenn ki manqué rek keneen ki mën a handicap ñeneen ñi ci des hmm. moo tax euh, ci am solo mooy foog ñu booloo ñu jéegoo doon benn hmm. euh, boo xoolee combat boobu comme sook noonu nga wax exemple ci combat mu ñëwoon na entraîné mais day amaat ñeneen ñi nga xam ne tey du ñu ñëw xëy na ond boobu la gisee te loolu tamit boo xoolee jaaruwul ci ñi nga xam ne nii dañoo war a départ te doo bokk li ñu bëgg. kon il faut ñu moyen de doole pour ñu li ñu bëgg ñoom ñu mën ko àttan pour yëkkati ko mais bu amee ku manqué rek pour ñu yëkkati loolu dafay xaw a day xaw a jafe trop. waaw loolu moom du ma ko rafetlu daal man dañuy manqué doole benn bokk li ñu bëgg. waaw ku ci nekk boo ñëwee teg sa loxo boo yëkkatee day war. bu ñu manqué rek day. xam sa cosaan actuellement nii lan ngeen manqué. waaw mooy euh, li ñu manqué mooy euh, comme comme comme nu ma la rek mooy ñu gën a doon benn gën a booloo. Mm-hmm. ndax dafa euh, boo xoolee xam sa cosaan lañ tudd nii rek mais écrits yi nekk ci bëri poulain yi toll noonu dañuy dem ba ci biir après pour ñu sawar ci li daan def dëgg-dëgg avant ñoo am tur boobu ah, dafa leen di xaw a manqué. Mm-hmm. mooy bu ñu xësee ba am benn benn tur bi rek pour ñu ñu ko ñëw tànk day xaw a jafe tànk amuñu combat. Mm-hmm. ndax dama koy jàppee luy boot seen ginnaaw xaw ma dama koy jàppee saay la xaw ma dama koy jàppee ni lu boot seen ginnaaw dafa metti ba ak combat rek duñ mën a duñ mën a def mbir mi du demee noonu kon dafay gën a handicap sa xel sax li ngay liggéey dafay gën a yàq ba li ci war a def dëgg ak li ci war a def dafay xaw a jeex nga ñëw tout le temps daal Hmm. am na solo waaw Modou. man beneen bi may lay laaj rek mooy gis nañ ni Jatli moom tamit ci leader yi la bokk mu amoon combat bu am importance Jatli. Jatli ah. waaw mu amoon combat bu am importance bu mu doon bëree. muy euh, moom ak jamteri ñu gis nii daf koo waaw ñu gis ni daf koo ñàkk. waaw soq tamit di préparer waat combat te moom ci leader yi la bokk moom ak gàmmu Gueye. waaw est-ce que yow yaa ngi bàyyi xel loolu noonu. ah maa ngi bàyyi xel. soq jatli perte na. te soq tamit mu ngi bëree Gamou Gueye. bien vrai que ni dañuy ñaan yàlla li nga xamante ne moom mooy euh, corona bi. jeex ak ci jàmm ak salaam ñu continuer li nga xamante ni moom mooy activité yi. mais tamit euh, est-ce que yéen a ngi waajal tamit ki nga xamante ne moom mooy soq. waaw ñu koy waajal comme niñ waajaloon jalli rek jalli boo xoolee waajal nañ ko waaj te dee dëgg yàlla bu neex a jàppale la bu neex a waajal la moom jalli ndax ko fonk bisam moom bu dul dara sax bu dul dara billaahi yàllaa ma ci bu dul dara moom moo gën a respecté entraînement ci équipe bi sax bu saison bi tëyee sax moom mooy def a soññ hmm. avant ñëw ci ji nañ def lii nañ def laa kooku moom wax dëgg yàlla bu amee combat bu amul combat la ñamale hmm. combat bi nag bëri na ko yàlla def ñu ne ñàkk na mais man jàppee moo ko ñàkk sax ndax hmm. euh, boo xoolee combat bi nu ulee man damay jàpp ni sax ba tey jii moom moo naan mais comme nee na ñàkk na rek ñàkk na mais man loolu laa jàpp ndax boo ñëwee mu naa la tegal ay image wóor mais comme loolu jàll na moom ñàkk na donc tamit wax dëgg yàlla wala jàmbaar la et pour pour ñemee lu la pour bëgg tamit lu def la dina ci ay coono yoo xam ne da ngay xam ne bëgg bi tam moo ko waral waaw ñu koy préparé bu baax a baax a mhm. euh, pour moo ma woon moo ma gàmm gi boo xoolee dugg nañ ci ay coono yoo xam ne ay tax. Euh, bi ñu seetoon mais nag li may wax rek jàppaa xamul yàlla ci yàlla jàppale rek ci bëri la moo fi nekk. mais ñi ngi ñaan borom bi combat yi des ak yooyu yàlla defal ci tam ba ñu nekkoon daal di ñëwaat fa. mais bu jàppaa seen yàlla yàlla mooy jàppale doomu aadama bi rek te bu mu jàppale moom da day xeer aat. yàlla nañu yàlla doon jàppale. mais ñu ngi préparé combat yi baax a baax. Naaru Sokaas ak Jordan est-ce que ñu ñëw entraînement. naaru sokaas ak jorot moom wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg ne xëy moom gën ñëw entraînement. ok naaru sokaas tamit moom lu ci ëpp ñëw moom entraînement mooy day am combat. ok waaw bu moom dina ñëw mais bu amul combat dina dina raas ñu ci saal bi dinaa ko bëri wax dëgg yàlla. Mhm. jorot tamit même chose moom it gën ñëw di fi combat bi passé moom ak. mooy Reug mhm. mais est-ce que jarul ngeen di def ay sanctions comme mbër bi nga xamante ni euh, jiili euh, dafa war a ñëw entraînement ñëwul entraînement mais yéen da ngeen koy bàyyi noonu rek après su amee combat rek mu ñëwaat ngeen kiiwaat. waaw boo euh, loolu. Mm-hmm. yoon la ñu def ko ni mbër bu ñëwul wala lu la teree ñëw war nga koo expliqué nit ñi ba ñu xam ne ñi jaadu na pour nga bañ a ñëw mm-hmm. waaye tamit euh, li wax noonu carton yi tamit jaadu na pour ñu teg ko mbër mm-hmm. mais boo xoolee loolu dafa xaw a manqué lu lu manqué la ci ci ci écrit yëpp euh, du yi xam ne souvent rek lu écrit beneen écrit mais boo xoolee euh, écrit yi nga xam ne ni moo nekk Sénégal naan ko ñoom dañuy am problème boobu ma la wax mooy bëñ mag pour ñëw ñëw entraînement normal dafay xaw a jafe lool ci ñoom. loolu nag comme li ngeen wax quatre ans yooyu jaar na pour mu dal mais est-ce que gars yi commencé gum nañ koo écrire bi est-ce que amul yeneen handicap yu mun a créer yooyu am yooyu tamit dañ ci am solo yooyu tamit dañ ciy waxtaan ba ba déggoo mun a mun a doxal loolu mais boo xoolee feebar boobu dafa dal boo xoolee feebar boobu dëgg yàlla mais nag jaadu na comme ni ngeen wax noonu saa soo ne wax ni xama daan nañ ñu ñii daan teg nañ ñu yii pour ñëwul ci lii pour ñëwul ci loo amul pour loo amul fayda dañ la war a a gëstuwaat gën ci xool pour yéen ñuy suivre Wassare Lamb tey nag ki ñu dalaloon mooy su mën nañu wax tax suñu gan muy ki nga xam te ni moom mooy mot Diop mu nekk entraîneur écurie Xam Sa Cosaan waaw di la wax rek cant ngërëm ñeel na la waaw kay di la wax kontaan nañ ci yow bu baax a baax jërëjëf di ko jëfalaat bu baax a baax moom mi nga moom moo Diop mu nekk entraîneur xam sa cosaan ñu dégg nag li nga xamante ni moom la wax dafa mel ni li mu wax rek sànq Baye li xaw na cee laa tuuti Baye Djili euh, euh, Modou Diop li mu wax ban jàngat nga ci am. Euh, koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jaajëfal ci disponibilité moom Modou Diop waaye mooy li ma waxoon rek soxna Fatima moom la wax ñu équipe bi dafay am mbër yoo xamante ne ay mbër yu mag lañ. mais dañ leen yaakaar ci làmb mais duñ leen gis buñ leen gisul nag li koy waral mooy buñ amee combat rek nga leen di gis buñ amul combat doo gis. ñoom ñooñu nag ñi nga xamante ne ñooy njiit équipe bi ñoom ñu war a jël seen responsabilité bopp amul mbër mu mag amul mbër mu ndaw. parce que ki nga war a def war a di wane yoon warul di tegg yoon parce que nga xamante ne ñoo war a wane exemple bu rafet buñ demee ba buñ amee combat rek lañ leen di gis ci équipe ba kon xale yi buñ jëfee noonu du am lenn loo xamante ni mën nañ leen ko ku ci mel ni Naaru Sokaas nga xamante ni euh, du xale ci làmb yàgg na ci làmb bëri na fi ay tàkkusaan yu ne. bu demee ba écurie ba duñ ko gis te moom mu mu mu jegee écurie ba wala mu dëkk presque ci écurie ba. Euh, di war nañu laaj lan moo tax duñ ko gis lan moo tax dootul entraînement parce que bu bu fekkee dafa dafa tekki ngembam te mu ne tekki na ngembam parce que mu ngi ci maa ngi koy gis ci open press bi bébé bi laa ko mujjee fekk. ku ci mel ni Jordan Jordan moom nekkatul Pikine parce que temps bi muy def lu baree bari mu ngi koy def si bi ko tànn. a mhm. nekk. Euh, léegi nag ñoom ñooñu noonu yëpp ñu demee nag ba gisatuñ leen ci kilo ba dafa jar ñoom ñu toogaat seen biir waxtaan waxtaan waxtaan boo xamante ne waxtaan bu biir néeg la ñoom mbër yu man yëpp ñu xool nan lañuy mën di def semaine bi ñaata lii ñëw ci équipe ba même bu dul ñoom sax ñu dooleel seen rakk yi nga xamante bi am nañ ci moom yaakaar euh, te et yaakaar nañ ci loolu rek laa amoon naa leen ko baaxee mm-hmm. mm. wax ci li nga xamante moom mooy leader yi nga li mu wax ni Jordan ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Naar Sokas. Mm. kenn ki entre ki euh, combat ba combat lay ñëw kenn ki gëj na koo gis yaa ngi ko doon wax sànq mm. beneen bi moom mooy bàyyi jiile ñu ci bari dañoo am problème yooyu. écurie yu bari da ngay gis ñu naan diw combat ba combat lay ñëw su amul combat du ñëw ci écurie ba est-ce que jarul ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor écurie yi ñu changé waat li nga xamante ni jël seen écurie def ko kon école mm-hmm. heure bii bu jotee mooy entraînement heure boobu bu dépassé benn trente minutes wala benn quinze minutes jeex na ba pare justification am ak li nga xamante ni tey amul tey mbëru benn combat amul VIP amul lépp tey ku ku ci jàdd kii ñu teg la ay daam xanaa loolu bu ñu ko defee après tamit nga yaakaar ni euh, du am tuuti changement mais moo gën am ñoo xamante ne mën nañu toog une année duñ fa jaar. Mm-hmm. ndax amuñu combat. Mm-hmm. bu ñu amee combat ñëw su seen combat jeexee ñu dem te en général nag ñu ngi ciy gis ñëpp dañuy daanu rek. Mm-hmm. ñiy def noonu en général dañuy daanu. léegi buñ daanee nag nga dégg gars yi di leen ŋàññi ngaan du ko soxore soxoree te or que ni ñoom la. mooy li wax sànq rek loolu lépp loo ci gis soxna Fatima mooy ñàkk waxtaan parce que bu ñu toogoon waxtaan ci seen biir dinañ xool nu mu gën a rafetee ñu def ko mbër mu jugee bu ta taatee bu nekk nii parce que xam na ni ñoom ñooñu ñëpp muy soq. Mhm. Euh, muy muy muy euh, naare sokaas. muy eh, Jordan euh, wax na wax bu am solo ci ci keneen ki muy jat bi hmm. mu ne jat bi moom mu am komba ak ñu ñàkk am komba moom lay yemale parce que kon day wane ni jàll yi mu ngi def euh, ay jéego waaye mu ngi wan rakkam yi nga xamante ne ñu ngi ci suuf te nekk mbër ma mag teewul chaque jour ngay ñëw ci écurie ba parce que yaakaar naa ni écurie ba moom doo fa tudd mbër mu mag teggi hmm. jàll mooy seen kilifa ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ña fa léegi nag kon ñu demee bay gis jatli yeneen mbër yi war nañoo mën a xoolaat seen taxawaay ci làmb ñu mën a defaat di ñëwaat ci bi ñu mën a defaat bay waxtaanaat ci seen biir parce que làmb moom lépp loo ci gis rek waxtaan la waxtaan bi moo jiitu lépp soxna Fatima. Mm-hmm. waxtaan bi nag nañ woote ndaje euh, waxtaan seen biir ñoom mbër yi ñu xool nu ñu mën a ñëwaatee ba équipe xam sa cosaan bi ñu gisoon démb ak bërki démb ñu mën a gisaat équipe xam sa cosaan moom Mm-hmm. am na solo baay ji lii xanaa di la jaajëfalaat bu baax a baax ndax dëgg yàlla analyse moom am dara luñ ci mën a teg xanaa ñuy tàggoo tàggoo bu du tàqalikoo rek di wax lan ngay tàggatoo. di jéem parce que xam a xam mm-hmm. <laughs> baax a baax mm-hmm. di la jaajëfal bu baax a baax kenn koo xamante euh, sama xarit la euh, muy Atou Junior kii ba coon ah. tey wax dëgg dama dama romb mu woo ma ma ñëw mu génne la bu rafet bi euh, may ma ko ci place am ndeysaan ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax ah. euh, ma nga nekk fële ci Cité mu ngi nekk ci corniche ba ah. Atou Junior nag mbokk yi dem leen fa mbër la boo xamante ni mu euh, la yaakaar waaye mu ngi mu ngi liggéey bu rafet ci ci ci bi nga xamante ni moo dul làmb parce que après làmb làmb métier la boo xamante temps bi gudd mais mu ngi ci waat leneen bay waaram kon mbokk yi dem nañ seet ko képp kuy mbër rek dama seet Atou Junior ma nga foofu ci écurie ba euh, ma nga foofu ci Cité Fadia ma lay jaajëfal bu baax a baax soxna Fatima di la tàgg ci tàggoo bi nga xamante ni moolu dàqañ ko di la jaajëfal bu baax a baax a baax am na solo cantam gërëm ñeel na ko muy bàyyi jéeli nee naa leen à chaque fois su ma bokkee ak moom plateau damay damay kontaan tamit suma xarit la ba pare chéri bi moom après dinañ xool parce que man dama xool may baatam ah en tout cas daal naan la kontaan naa ci yow analyse bi jaar na yor xam naa yéen ñuy seetaana ah, ñu ngi leen di waat bu baax a baax kon ñu ko bàyyi jéeli waxee di ko béggewaat ah moom mi nga xamante ni mooy kàggu ah, tey moom wax dëgg moom moo nekk ci équipe technique bi yëpp tey lépp moom moo réalisé lépp lépp lépp di ko jaajëfal bu baax baax ndax <laughs> solol nañ ko ci lépp naan la rek euh, kontaan nañ ci yow wax dëgg yàlla yaa fi nga ko teg daal foofu la mais kenn du moom sama séeréer bu nice bi nga xamante ni moom mooy Basirou Diouf kon ni ma koy waxee rek naan la yow yàlla sa jàmm yàgg mais di ko bëggee bu baax a baax moom Kara ndax nee naa leen euh, ku bëgg lu baax danga fay dem suma mag la suma xarit mooy borom ensemble yu rafet yi borom rob yu nice yi mooy borom lépp Kara Fashion yow xam nga ko ah, moo moo ah, génn fii nii ah Mhm. Canal Officiel. Mhm. ah robe merci beaucoup kon li baay ji wax robe mën naa dem fu ne ci réew mi yow defal lu la neex di leen bëggee waat ah yéen ñi nga xam te ne yéen ñoo ñu tàmm woon ci li nga xam te ni moom mooy jàngatu làmb bi ndax gis naa ni ngeen ko accueillir di leen jaajëfal rek bu subaa jàmm bàyyi bu subaa jàmm incha allah. jaajëf